période bile en tout cas euh, comme ñoom politiciens yi dafa ñu gën a jàpp leen bu ñu bëggee dara daf leen di jaral donc ñu nit bu ñu bëggee dara nañ ci profito surtout tout et puis c'est très simple voilà merci en tout cas à Fatou Bintou Conté ci reportage boobu la nga xamee ni euh, defal nañu ko on parle de tout et jamais de rien dans cette émission li ci topp euh, dañ ciy ànd ak euh, euh, Cheikh Ngoné mu demal ñu dëkk bu ñu naan Jidda Caaray Kaw gis nga Sénégal bëri na ci ay gox gox goxaan yoo xamee ni dañu am ay kondir enfin ñun kondir lañ ko tuddee tubaab naan bassin de rétention genre kondir la yoo xamee ni bu ñu ko ibbee d'habitude en temps normal ndox dafa war a jaar waaye daanaka bassin de rétention yooyu lee dafa dem ba doon danger euh, pour euh, ñi dëkkee ci gox yi mu ne euh, ay xaj ay jaan ay ñax ndox mu salte mbalit mu bëri am na sax ay xale yoo xamee ni jot nañu fa faatu ak ak ak ay mag yu fa lab parce que day bëri ndox ba noppi itam jaxasoo loolu nag doon lu xaw a jaaxal ñi nga xamante ni ñoo dëkkee ca jidda caare kaw Cheikh Ngoone lañu fay àndal type de jaan boo xam ne moom bon il est dangereux. ay ay chiens yoo xam ne dañu fi nekk. li mooy animaux yi nga xam ne nag ñoom ñooy dund ci bile bassin de rétention file ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci weg gi di wéy ci ay jafe-jafe ak itam njàqare ñu nekk file nga xam ne moom moo di ci jidda caaroy kaw. depuis 63 on est là donc ku nekk fii depuis 63 xam nga rek vraiment il vit le jour au jour on a vu qu'il y a danger permanent. xaj yoo xam ne kenn xamul xaj la kenn xamul bukki la ñun ñu jàkkaarloo en face bassin bi guddi gi dañuy dégg muy mbaw di mbaw di mbaw en même temps xar yi dañuy dugg ci biir kër yi di lekk xar yi di leen cuqati ku ci sàcc nit wala nga agressé nit ci biir bassin bi ngay dugg. la ci gën a doy waar bokk na ci xale yi espace de jeu yi nga xam ne nag fi la ñuy foowee. yenn saa yi seen ballon dafay tëb dugg ci biir su fi duggee ay xale lañu dañuy tëb dem uti ci ballon bi. pendant ce temps là fekk fa ay ay ay foo xamante ndox moo fa doon taa mu mun a nekk ay ay ay ay germes yu bëri nekk fa ci ay ay ay parasites ak yu mel noonu foo xam ne dañ fay sotti mbalit yenn saay ndaxte lii war tax population yi war a mën a yóbbu seen mbalit amul. donc loolu yëpp ay loraange la. te une aberration que ñu gis espace bu toll nii ñu bàyyi ko rek ay jaxaay di fi sax ay ay reptile di fi génn lu ne nekk fi ci biir. leneen itam lu askan wi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkkee di jànkonteel bokk na ci mbalit wi nga xam ne nag dañ ko fiy tuur xeet woo xamante nii mu ngi jaabaa jonge. loolu yëpp dafay créer ay conditions yoo xamante ni si insalubrité ba fay nekk day jur ay jàngoro. bassin de rétention yi le nag ñu amaloon ko fi ngir rek daal di tàqalikook lépp lu ñeel wàllu mbënd mi waaye mel ni nag ci yile jamono jafe-jafe yi dafa gën a bari jëmale ci askan wi askan woowee itam di sàkku bépp jafe-jafe boo xamante ni ñu ngi koy dund te bassin yi la tax ñu daal di koy coppi wala boo ko daal di ci indi saafara ngir rek ñoom ci seen bopp ñu mën a dund ak seen teeg ba kenn mu ngoog fa ñu demoon di jëdd caarwe kaw àndoon fàkk euh, Cheikh Diop ci bassin de rétention yooyu la nga xamee ni mu ngi ante sommet yu ña fa dëkkee euh, jaaxal leen euh, en attendant nag ñuy saafara jafe-jafe boobulee ñu ngi leen di ñaan ñu téye xale yi ba ñuy bañ di foowee ci boor yi parce que boo nekkee xale moom da ngay dem ak innocence ba loo gis danga nga cey bëgg dugg donc bassin de rétention yi du fawukaay bu dee mën ngeen a téye xale yi ñu koy éviter ndax bëri na ay xale yu faatu ci bassin de rétention yi lée am na sax benn politicien doomam euh, bu doomam euh, gaañu woon ci euh, bassin de rétention yi mu yaa je sais plus ah am na benn politicien yi paraît ah boo xamante ni doomam dafa dafa dafa dafa dee ci bassin de rétention yooyu la donc faites très attention ngeen toppatoo seen doom yi merci Cheikh ngoone mbaa xam ngeen ni promo flash am na tey ak orange alors profitez-en parce que tey fii ba 23h59 di ngeen am genre 700 pour cent des 1500. maanaam boo jëndee crédit 1500 di nga am 700 pour cent ba noppi itam 3 pour 300 pour cent des 500 francs donc mën ngeen ko vérifier ci Jazz 144 Jazz wala ngeen xool application Orange Money bi euh, wala Orange et moi donc 600 pour cent des 1500 wala 200 pour cent des 500 francs par Seddo loolu nag euh, Orange moo leen ko jagleel tey jii ci bis bi midi 23 on reçoit notre premier invité. Le masterclass tant attendu du 30 janvier 2022 masterclass bi ñëpp doon xaar ak Kangue Style Kangue Style une véritable grande célébrité dans le monde de la coiffure ah mbokk yi pour coiffeuse yi ñi bëgg jàng ak ñi mënagul dinañ leen jàngal nooy defee customisation lace waaye nag lace yi am daa bari façon yi am daa bari jàngal la pose perruque bouclage lissage nooy toppatoowee sa perruque ak say cliente su masterclass bi jeexee nag da ngay am sa licence en coiffure buy certifié ni mën nga coiffé si àdduna bi yépp King Fat Palace lay doon de 8 heures jusqu'à 22 heures dina am dîner de gala ak ay surprise yu bari inscription yi léegi léegi léegi léegi léegi lay doon te léegi mu jeex master class bi 160 000 francs rek la lay dikkee woowal gaaw Kange Style la grande célébrité ci wàllu coiffure au 77 744 88 04 77 744 88 04 wala 77 403 12 Rendez-vous le janvier au Fat Palace. allez le 30 janvier on sera tous au King Fahd Palace rappelez-vous daaw ñu ngi fa woon ren itam euh, Kange style di ko organiser ñëw set suñu tay ci Midi Plus bi parce que euh, ku ne xam na ni Midi Plus moom désormais passage obligatoire la pour tout le monde donc du coup euh, c'est notre petite sœur sunu xarit la et puis elle a beaucoup de talent on parlera de tout ça d'abord Kange ñu ngi lay nuyu bëgg nañu tey ci sa teewaay bi ci Midi Plus pour parler de cet événement di master class boo xamante ni daaw ñi amoon chance Euh, bokk ci euh, ñu ngi évoluer bu baax surtout ci wàllu euh, coiffure ren nga jàppaat date muy le 30 janvier encore di dimbali ay ndaw ci wàllu coiffure dañu lay bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi ak internet yi ñuy seetaan. maa ngi lay nuyu. maa ngi nuyu képp ku toog di seetaan am TFM instant bi di mhm. nuyu Sénégal gépp mhm. di nuyu ñu ma fi fekk. Mhm. <laughs> amul rusa amul rus. yow màggal gu jot nga defar ba mu baax <laughs> gàmm gu jot nga defar ba mu baax léegi événement yi sénégalais yi dañuy xaar lan la kànge takk ak lan la kànge sol ak kan la ñuy concoural kànge nga ñi da ngaa rus man loolu du ma ci ànd. <laughs> non Pape Cheikh man moom nii laa yor damaa. damaa rus tuuti loolu moom. c'est pas grave <laughs> alors d'abord xam nañ ko. bëri na ci euh, euh, expérience boo xamante ni jëlee nga ko Amérique. bëgg naa ñu dellusiwaat ci tuuti laata mhm. ñuy wax ci euh, événement wu 30 bi. Mhm. pourquoi sa passion nekk. mode coiffure mm-hmm. lu tax. Euh, mode nag dama ko yàgg bëgg Pape Cheikh. Mm-hmm. parce que mën naa ne bi may nekk euh, kii amee 10 ans ba tey. Mhm. dama yàgg bëgg létt. depuis 10 ans depuis 10 ans laa commencé di foogoon. di tàmbali ak ay datt bari suñu kër ma létt <laughs> ñu dëkk suñu ko ak ñëpp maa leen doon létt donc. bi ma ci to nekkee di létt daanu nangu ma woon a jàngi. Mhm. damay war a like jàng sax daw toog di létt ay nit. Mhm. après sama sœur sama mag ne sama yaay kii moom bu yeboo nañ gëm yàlla rek. dugal ko formation def na ma lu nekk pour ma jàng <laughs> mais yàlla def na ni moom uh-huh. lii rek laa laa bëggoon donc uh-huh. biñ demee ba xam ne lii laa bëgg uh-huh. ci lañ ma dugalee benn ki am école de formation koor ko coiffure bi ma demee sax ñooñ dañ bañoon ne duñ ma jël parce que xale laa woon je pense que 14 ans la la la laa ki yoon ñu bañ ne dafa tuuti duñ ko jël après sama mag bi wax ak ñoom ba ñu jël ma ma def fa deux ans formation génn bi may génn Euh, je pense que 2004 yooyu la après ma jaaraat ci salon de coiffure fii Sénégal raasale waaw dugg fii génn <laughs> ñuy dàq ba ñuy téye <laughs> ma def fi benn trois ans je pense léegi nag si laa demee États-Unis bi ma yeggee euh, tamit ma xam ne euh, lii bëgg naa ko mais aussi il faut ma jàng mhm. parce que il faut nga nga dégg làkk bi il faut tamit nga am benn niveau bi mhm. pour mën a dem si yenn seen euh, euh, si yenn milieu yi uh-huh. so si laa demee di jàng mhm. di liggéey en même temps mhm. léegi jàng naa fu benn quatre ans ba am sama jiidi après ma ma soog a toog donc Sénégal nga am fi diplôme. am fi <laughs> expérience. dem tam Amérique. am mhm. fa diplôme. Mhm. am fa expérience. mais souvent man li may wax ni euh, mooy lan tax ñëw Sénégal bi mënoon nga toog Amérique quoi moo ëpp opportunité. Euh, mhm. sa salon foofu sa liggéey foofu sa entreprise foofu. mais toujours dangay ngay bëgg euh, loo am rek nga ñëw indi ko fii Sénégal pourquoi loolu. loolu chaque jour damay wax ci yar bi la. ndax ñun sama yaay dafa ñu yar ñuy ay jullit. Euh, mu yar ñu ci diine ak l'islam mhm. yar ñu ci li ñu nekk États-Unis yëpp aussi mhm. daf ñu nañu lii mooy seen culture mhm. lii ngeen di suivre lii ngeen di def ay sénégalaises ay sénégalaises très bien Sénégal ngeen juddoo fa ngeen yaroo même bu dee États-Unis ngeen màggee aussi da ngeen di topp seen religion ak seen culture so loolu tax na bi ñu demee deux ans laa fa njëkk a def après ma ñëw vacances mhm. donc tout le temps dama doon bëgg di ñëw vacances Sénégal mhm. après bi ma commencé di ñëw vacances ma ne pourquoi pas ma commencé di def commerce mhm. si laa commencé di jaay ay yére su ma <laughs> su ma doon ñëw vacances di jaay ay yére ba benn instant macha allah ma commencé miinanteeg population bi. après ñu commencé am euh, kànge indil kànge am kànge indil kànge <laughs> parce que ñu bëri période boobu xam nañu tur bi mais xamuñu bi en fait voilà <laughs> léegi su ma delloo dama doon liggéey foofu aussi di liggéey Sénégal. Mhm. ma ne pourquoi pas nag man lii laa bëgg. te mhm. comme Sénégal laa tàmbalee. Mhm. naa dem Sénégal. te tôt tard tamit Sénégal rek lañuy ñuy mujjee. donc liñ naan. Euh, Ah, ku tukki tamit na nga sóoraale rek tôt ou mhm. sa réew ngay mujjee mhm. te lu lu waay di ñaan rek mooy mhm. boo tukkee tekki boo ñibbisee it bul fàtte sa réew comme ni ko ah, toto Youssou di wooyee waa <laughs> loolu moo tax et foofu États-Unis aussi tout le temps dafa am luy ñëwaat nga am chance nag ñu reconnaître la parce que benn dëkku jàmbur la ñaar lu waay mën ci wàllu coiffure wala maquillage ñoom américains yi ñoo la ko dàq. parce que ay defarkat ba mu baax la ñoom <laughs> dañu bëgg maquillage bëgg xef bëgg rouge à lèvres mais yow nga am chance su. Mhm. américaine yëpp di ñëw ci yow. waaw loolu c'était pas évident ba ay star yu mag. Mhm. ñëw nga leen di defaral. waaw loolu moom dëgg la moom loolu yëpp dama koy sant suñu borom rek. Mhm. ndax chaque jour li may wax mooy kànge du dara. benn xale la bu am like kii am. ambition bëgg a liggéey. Mhm. sunu borom di ko jàppale. Mhm. loolu lépp dama koy sant suñu boroom rek ndax am na ñu ma jiitu. Mhm. wala ñoo xamante ni tey jii ñu ngi ci samay tànk. Mhm. di di di di di ñaan yàlla mel euh, euh, mel comme Kange. Mhm. donc loolu lépp rek dama koy sant yàlla. chaque jour li may wax rek Kange du dara man des fois. dama naan lii like lan la. parce que benn euh, simple Kange bi ñëw Sénégal macha allah nit si bëgg ko. accueillir ko jàppale ko donc loolu lépp rek si sant sunu borom la. yow des fois loolu du la jaaxal. waaw des fois <laughs> dina ma jaaxal tuuti mais sant yàlla rek. parce bëri. dëgg la Amérique boobu bi itam am nañu. am nañu comme j'ai dit tantôt mais voilà jox la bopp ni macha allah je touche du bois. sant yàlla rek. <laughs> li ngay def moo rafet moo tax. waaw li may def rafet na ba pare dama ko bëgg aussi. Mhm. nit ki li may wax chaque jour rek booy booy def dara. Mhm. am ci euh, yéene. ak yëg-yëg ak bëgg ko mhm. ndax boo ko bëggee rek mhm. kii jaay gerte mhm. kii jaay lépp rek lu waaye di def rek na nga ko bëgg am ci like sa fulla ak sa fayda ak sa jom te xam ne foo si bëgg a dem rek suñu borom mën na la si yeggali boo ci jiitalee loolu et puis depuis daaw nga ñëw euh, di organiser master class bu mag daaw ñëw naa euh, fekk naa fa ministre de la jeunesse euh, Néné Fatoumata Tall parce que kilifa yi itam kenn du leen déplacé ci ay caaxaan bi nga xamee ni ñëpp xam nañu wàllu crédibilité bi euh, mhm. ñëpp ñëw ma gis fa ay jigéen yu bëri yoo mhm. xamante ni euh, jot nañu leen formé mhm. euh, ba ñu am diplôme boo xamante ni même mën nga nekk Amérique te doo am reconnaissance boobu noonu pourquoi projet bi nga tàmbali ko daaw fas yéene koo def at bu jot ba ren itam nga décidé ko defaat fii ci King bi waaw parce que master class bi li tax ma décidé ko def mooy dafa nekkoon sama rêve te dama nekkoon États-Unis di liggéey ku ne ne xam na ni salon États-Unis day nekk da ngay gis ku luye benn salon bu mag mhm. boole ci douze coiffeuses yu bokkul ku nekk lu chez CS di liggéey mhm. te du tee ku nekk di nga lekk sa wërsëg mhm. donc yàlla boole maak um, anu muy benn célébrité hairstyliste bu mag États-Unis depuis 87 mi ngi def coiffure ci moom laa nekkoon si laa xamanteeg célébrité yi ma doon defaral et ma doon gis bu doon dem hair show yi mooy comme genre master class yi daf may ma demee sama yeneen moroomu coiffeuse yi mhm. ni ñuy like wane seen liggéey te du mhm. tee aussi euh, wane seen liggéey du tee da ngay gis buñ ko wanee tey bu dewee déwénee dañuy gën a jëm kanam mhm. donc ma ne mais pourquoi pas lii ñun sénégalais yi ñun tamit ñu di ko def parce que ku nekk li ngay liggéey bul jàpp ne lii su ma ko wanee daf may ñàkkal wala damay perte wala something like that pour man dimbali like ñi nga ñi nga tane. Mhm. wala ñi bëgg li ngay def. Mhm. loolu dara nekku si. parce que am na jigéen yu bëri donc si loolu laa rêvé. ci mhm. loolu laa jàpp ni man pour pourquoi pas tey jii lii may jàng fii. ak ñii nga xam ne tey ji bokkuñu dara duñ mhm. samay mbokk mhm. ñu may won mhm. ne ma nii ngay defee ak ne la ngay defee man tamit dama koy dem yóbbu ko sama réew parce que loolu moo nekkoon sama rêve parce que bëri na ay jigéen yu mën létt par exemple yu mën coiffure yu mën euh, par exemple euh, defar perruque mais amuñu moyen dëgg la wala amuñu possibilité parce que man nga man mais doo xam détail yi bi ngay jaar waaw chaque jour loolu laay wax nee naa coiffure dafa nekk euh, métier boo xamante ni boo ko bàyyee mu bàyyi la mm-hmm. te dafa nekk loo xamante ni tout le temps nit si dañ ko war di ko jàng ndax mm-hmm. man mii di waxante yow mën mm-hmm. naa ne année bi dinaa si dem États-Unis deux fois pour jàng même bu dee benn chose mooy changer sax si li may mhm. liggéey. Mhm. dama koy dem jàngi ko parce que mode dafay évoluer dafay évoluer ne veut mhm. pas dire que yow li ngay def. wala kànge moo la li ngay def wala dara c'est juste que da ngay dem pour xam secret kànge. boole kook yow sa secret téye. boo ko defee noonu boo demee si kànge demaat keneen. bu yàggee macha allah. lépp loo bëgg si mode bi di nga ko euh, am di nga ko def. donc loolu moo tax ñuy def master class parce que man mii di waxanteeg yow di def master class. sax man damay dem ba tey di jàngi. Mm-hmm. parce que mode de coiffure moom il faut ngay nekk di changer mm-hmm. di jàng mm-hmm. di xam ne mujjee pour def yi xew quoi euh, voilà donc ren euh, da ngay dañuy jàngale euh, secret ak connaissance su perruque uh-huh. ah donc loolu loolu dina bokk ci programme master class bi defoon nañ euh, confection defoon nañ lépp. Mm-hmm. mais ak Covid bi moo ñu jàppoon ba ñu teel a pare. je pense mm-hmm. que 19 heures lañ arrêté woon. Mm-hmm. mais cette fois ci ren ñi ngi ñaan suñu borom mu yeggaleñ ci si jàmm. ñu jël suñu temps. wan leen lépp. wan leen comme li may wax rek différence su lees yi. lan mooy différence bi lan mooy différence su liggéeyu kànge. ak ñeneen ñi waaw. Euh, ak lan moo lay lan mooy changé ak lan moo génnaat lu bees mhm. donc ñi nga xamante ni bokkuñu si woon daaw mhm. bu ñu ñëwee dinañ leen woon li ñu wone woon daaw mhm. ak li ñuy wone ren ñi si bokkoon daaw aussi ñu bari macha allah bokkaat nañ parce que gis nañ ci seen bopp donc dañuy ñëwaat pour gën a jàng daf leen di yokkal expérience ñoom aussi sóoraale naa leen si lu bari ba ñoom tamit dinaa leen gën a won ak euh, like um, méthode bi ma leen waneen bële passé mhm. ak ren du bokk incha allah waaw ak liñ ci daaw daaw problème bi amoon mooy mhm. euh, euh, ñu bëri dañoo yéex a inscrire fekk place amatul fekk place amatul loolu itam ce serait bien nga <laughs> wax ko téléspectateurs yi parce que il faut que nga teel def inscription yi pour mën a am place ñun nag dernière minute la <laughs> mën man je me rappelle depuis mois de novembre ci laa dégg ni tàmbali nga ah, inscription yi mais ñun a inscrire licence aussi du loo xamante ni damay dem di ko jël damay dem fay nombre de personne ñu jox ma nombre de licence te ah, mënuma jël plus que licence waaw donc léegi euh, ñu ngi ci ba tey mais inscription yi macha allah li ci des sax bariwul. bëreetul <laughs> parce que depuis novembre lañ ko tàmbali. depuis novembre waaw normalement semaine bii lañ ko waroon a tëj. Uh-huh. mais dinañ demaat tuuti. Mm-hmm. ba si peut-être ba semaine prochaine côté la 25. maanaam di nga di nga mayewaat au moins une semaine dinaa mayewaat 5 jours. maximum 5 jours waaw côté la 25 incha allah. je vais donner numéro de téléphone yi pour ñiy seetaan. Mm-hmm. Euh, parce que euh, dinañu waat cinq jours ngeen mën a am temps inscrire euh, ci Kangue Style Master le 30 euh, janvier ca King Fahd Palace euh, donc 77 notez bien 77 744 88 04 pour jigéen ñi am passion coiffure euh, bëgg ci am licence boo xamante ni boo ko yóbboo Amérique sax mën nañu la jël ci salon de coiffure yi parce que c'est reconnu par les plus grands spécialistes de coiffure ou en coiffure donc 77 744 88 04 wala 77 403 12 21 77 403 12 21 li ma bëgg a xam itam euh, Kange mooy lu tax xaaroo état lu tax xaaroo autorité yi c'est-à-dire bi ngay organiser ba tey da ngay dem ak sa ay propre moyen dangay dem ak sa propre staff mm-hmm. et pourtant lii mooy création emploi mm-hmm. joxe diplôme mm-hmm. joxe xam-xam Euh, bokk na ci jàmbatu sénégalais yi mais yow ci wàll bi nga féete. Mhm. yaa ngi jéem a xool nooy yokkee développement wu Sénégal mhm. pourquoi. waaw loolu moom peut-être daaw. Mhm. xëy na daaw bi ma koy commencé. dem naa ak sama bopp. Euh, du ma ne dem naa ak sama bopp sax mais samay nit jàppale nañ ma. ba nga xamante ni réussir naa ko mais ren. Euh, ku xool chaque jour li may wax nee naa man li may fay master class su ma demee. États-Unis mën naa ne su ma ko fayeeku woon fii Sénégal du ma gis benn <laughs> nit. Mhm. parce que man minimum su ma demee dinaa fay mille six cent dollars. wala mille cinq cent pour am benn classe benn jour. Mhm. mais États-Unis ak Sénégal bokkul. Mhm. donc loolu moo tax prix bi ren sax ma yokk ci dix mille parce que daaw cent cinquante mille la woon. mais ren dañ ko def cent soixante parce que. ren aussi programme woon naa si yu bari. parce que euh, bëgg bëgg naa def euh, diine. Euh, comme euh, daaw couvre-feu bee taxoon. Mhm. bëgg naa def dîner bëgg mhm. naa def déjeuner. Ah. Euh, et tout. Mhm. donc ku gis salle bi aussi ak King Fat ak programme yooyu yëpp. da lay bu doon kaa ngi ci master class bi ak. Euh, inscription yi la basé wu rek du si génn. Mhm. donc ñi euh, samay nit macha allah ñi ngi ma siy jàppale bu baax. Mhm. Euh, jàppale ma si saal bi jàppale ma si si lépp. Mhm. ma leen si remercier du ma bëgg a tudd seen tur parce que ñoom tamit dañuy def rek te yàlla tax donc. loolu moo tax mais ren moom macha allah jàppale nañ ma si par rapport ak daaw. voilà ban ban message ngay jox euh, ñi inscrire ba pare. Mm-hmm. Euh, nar a bokk ci master classe su 30 bi. ak jigéen ñi inscrire gul parce que bëri nañu. Mm-hmm. Euh, peut-être mm-hmm. xalaatoon ni mën nañu jël seen temps am nañu temps mais cinq jours rek la ñu am. pour inscrire mën cee bokk ban message nga leen di jox. waa dama leen di wax ñu gaaw rek ñi nga xamante nii ñëwaguñu ñu ngi duute parce que Sénégal moom. dañ naan mais ñi si bokkoon daaw moom macha allah mën naa ne ñoom ñoo njëkk a ñëw sax mhm. ren parce que mhm. peut-être ñoom jànge nañ si lu bari. Mhm. donc ñi nga xamante nii tamit ñoo si bokk macha allah ñoom ñoo ma gën a yàqal bi sax master class mu commencé <laughs> <laughs> donc maa ngi leen di jox rendez-vous incha allah le 30. may ñaan suñu boroom mu dugal ñu si jàmm. ñu def ko ci jàmm. ñu gis ci ndam man tamit ma gis ci ndam incha allah. kontaan naa et fii Sénégal fu ñu la mën a fekk. maa ngi yor virage. Mhm. boo ñëwee ba aéroport rek. Mhm. boo passé business bi rek nga jaar de sa droite foofu laa mhm. nekkee. voilà donc rendez-vous le 30 le 30 King Fahd <laughs> euh, euh, Palace je reçois beaucoup de messages Mado euh, t'embrasse très fort parce que moom fa bëgg coiffure bëgg mode bëgg defar ba mu baax. <laughs> y en a d'autres yoo xamante ni actuellement ñu ngi seetaan donc rendez-vous ak euh, Kange Style mais des logos américains. non maa ngi Sénégal de moo dax Amérique. CA fekk New York. dégg loolu. <laughs> merci Kangué on est content lii passage la woon rek mm. en attendant le 30 euh, janvier donc ma joxe waat. Euh, numéro de téléphone yi euh, pour yéen ñi nga xamante ni yéen a mën a inscrire yéen a bëgg a inscrire plutôt je rappelle que inscription yi tàmbali nañu ko euh, depuis novembre donc apprendre les secrets d'une connaisseuse de perruque professionnelle de renom muy 77 744 88 04 wala 77 403 12 21 Kangay Style masterclass bi janvier 30 le 30 janvier la ñu koy amal ca King Fahd Palace est-ce ay euh, comme daaw euh, ay nit yu jógee feneen yu jógee Amérique par exemple pour ñëw am naa ñu jóge France am naa ñu jóge États-Unis Gambie. Mhm. Guinée dëkk yëpp quoi waaw mhm. ñu bari. c'est vrai que daaw gis naa fa ay Gambiens gis naa fa Ivoiriens gis naa fa waa Guinée comme a ñëw am na ñuy jóge Gambie. Mhm. am naa ñu jóge je pense que Guinée aussi. waa ak euh, fël Mauritanie. Mauritanie aussi am na ñu am nañu parce que daaw dafa amoon kenn ku ci bokkoon. kenn rek moo jóge woon Mauritanie daaw. mais bi mu demee. yeneen coiffeuse yi fa nekk dañu gis exactement yam ni mu changé. Mhm. donc moo tax macha allah ren bi ma defee kii bi annonce bi rek waa waa Mauritanie ñu bari dañ si bokk. ak waa Guinée ak waa mhm. Paris. Mhm. ak waa États-Unis aussi am na ñu ñëw waaw. merci en tout cas. merci da rek nii xam lan moo ko jàpp. waaw bien sûr loolu xaaral ma <laughs> sax. Ah. day day moom boo xoolee kanamam dama bëgg nga wax ma kii ngay gis ni lan moo ko lan moo ko jàpp moom xanaa kii dina ko jàpp. macha allah muuraay bee ko jàpp. kii coupe carré Sénégal gépp a ko wax. mais coupe carré dina ko jàpp de non moom nañu ko bàyyi ci muuraay gi rek macha allah da koo jàpp yii muuraay bi jàpp. Fatick rek bàyyi la. bàyyi <laughs> la rek bàyyi la nga dem. <laughs> ndeysaan xam naa ni yaa ngi muur mais sa xel yëpp mu ngi ci kii yi nu mu tudd <laughs> ci coupe carré yi. non bàyyi naa. wala cheveux naturel bu tombé ngay journal naan nii. daan naa ko def ay temps xibaaru dugg ba tëgg gi. Euh, dañuy dem ba bi Adama Barrow dañ koy investiture loolu dafa neex de. man pes bi laa doon def pes bi. <laughs> yàgg nga pes et sa mire sa mire yi temps yi ngay def yeewu leen. waaw ñu ma daan amee naqar. xam nga temps boobu maa ngi woon ci télé concurrente bi. waaw su ma xëyee gis nga gis la nga mire yi rek damay fay télé bi. <laughs> <laughs> allez Fati euh, ñu ngi lay nuyu moo wéyal la waa koñ bi balaa nga may jox titre yi. <laughs> waaw waaw xam naa ni mooy sa mooy sa woyu xol <laughs> waa koñ bee kaay leen seetaan. Faty Dieng ñëw naa <laughs> bu ca kanamee tombé ak 13h jot. incha euh, allah dinañu ànd ak ci journalu wolof bi. Euh, bokk na ci li ngay développé investiture euh, président Adama baro ca Gambie. noonu la Pape ginnaaw bi ma la nuyoo fay sa invité nuyu téléspectateurs yi foofee ca Gambie président Adama Barrow ci kanam tuuti war sax jamono ji ñu ngay waajal xew ba foofee ca stade bu mag ba nekk ca Banjul dafa fas yéenee moom njiitu réew bu Gambie ay. njiitu réew itam ñu euh, woo leen invité leen ci xew ba bokk na ci président Macky Sall euh, ma nga foofee ca bi beneen ponk itam Pape Cheikh ci diwaanu euh, Bawal danoo gis ne foofe dëkk bu ñu naan Njuufeen dafa am kuñ fa faat bakkanam ca département bu Diourbel ca Njulli 1 moom ca Bambey am kenn ku fa xaru loolee yëpp nag gendarmerie ibbi ci enquête Babacar Diouf def ci taxaw seetlu daañu am ci kanam tuuti Ablaye Cissé ñu ànd faram-fàccee la xew ca Euh, euh, Gambie euh, muy président Adama Barrow li ci yéene kaay yi ñu fas yéene ci ànd ak Maodo Mouhamed Ndiaye Pape ma delloo la lenge yi ci kanam mais mais Fati entre nous waaw Ablaye Cissé amul dara Gambie <laughs> temps yi de expression gambien sax lay non seulement expression gambien la yore <laughs> waaye damaa gis ni saa yu dara xewee Gambie du yónni xale reporter yi mooy demal boppam. mooy suñu envoyé spécial. xam na am na ñàkkul ni am na lu mu am gàmm. mooy suñu spécialiste. <laughs> alors puisque da nga bëgg livre. waaw euh, je présente tout à l'heure bu kàngee demee léegi deuxième partie bi. Mhm. ñu recevoir euh, mhm. euh, premier silmaxa bindkatu livre. waaw maa ngi gis ñu ngi koy woowee. un aveugle qui écrit des romans. Ah. c'est pas Sidi Bouya Mbaye yow foo xamee Sidi Bouye. parce que dama ko mës a interroger. yow da <laughs> alors regarde def na livre tuddee ko Le Rescapé. oui. def ko euh, La Longue Nuit. Mhm. def itam livre tuddee ko Volupté Fatale. oui et pourtant ab silmaxa la. absolument buy dox sax dañu koy wommat. léegi nii bi muy yegg si ñu ngi koy wommat. moom nag mu amoon ab feebar boo xamante ni mu ngi tudd méningite. 1990 mhm. euh, affaire bi jox ko cécité ba ay bëtam muuru. Mhm. mais terewul mu ngi bind ay livre mu ngi jàngale euh, il va nous rejoindre créer na sax euh, parti politique parce que dafa am fit voilà def na def na def na def na parti politique et je sais que toi tu adores écrire et tu aimes lire tu as déjà fait un livre euh, defe naa chambre de nga ko tuddee pour ne pas dire 7 Euh, on le verra tout à l'heure mus nga ko interviewé lan lan nga may jox pour bu ñëwee ma wax ko ko Euh, c'est vrai que nag xaw na yàgg je pense que c'était même à propos du roman Le Rescapé. mais euh, roman, son courage. parce que mm. déjà bind yombul. Mm. rawatina say bët euh, mm-hmm. mais nga nekk quelqu'un boo xam ne qui est très impliqué également. ah euh, am parti politique am mm. xalaat ak mm. gis-gis ci euh, àdduna bi. Mm-hmm. nekk itam koo xam ne exemple nga. ci mm-hmm. peut-être képp koo xamante ne si tey say bët sëgg na. parce bu ñu mësaan wax ne nit dafa bëtam dafa muuru. Mhm. amaana say déplacement ak say activité dina limité mhm. mais moom dafa ñëw daal di décomplexé dindi loolu yëpp mhm. et c'est une personne à encourager si voilà donc il va nous rejoindre euh, euh, euh, tout à l'heure ñu ngi xaar sa deuxième livre ah <laughs> su boobaa nag dama lay invité da nga nekk invité invité midi plus pour ñu xaar si di bu <laughs> allez ñu bàyyi la nga dem préparer journal bi à tout à l'heure midi 46 euh, ngeen am itam possibilité yër suñu site internet muy www.igfm.sn Kangué merci euh, d'être passé nous voir euh, yan kàddu ngay tëjee waxtaan bi Pape Cheikh merci yow tamit. Mm. Euh, ci invitation bi kontaan naa trop vraiment. Mm-hmm. Euh, di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal jàmm yaa na fi jàmm sax. amiin ndax ci jàmm euh, la lépp xaj. Mm-hmm. di wax xale ñu préparé bu baax incha allah le 30 janvier. Mm-hmm. ñu def comme nañu defoon daaw rek. <laughs> incha allah man kenn du ma fa jiitu bu soobee yàlla. voilà merci beaucoup d'être passé nous voir ñu tegaatal leen annonce bi en attendant le 30 janvier Kange Style masterclass ci King Fat Palace. masterclass tant attendu du 30 janvier 2022 masterclass bi ñëpp doon xaar ak Kangue Style Kangue Style une véritable grande célébrité dans le monde de la coiffure ah mbokk yi pour coiffeuse yi ñi bëgg jàng ak ñi mënagul dinañ leen jàngal nooy defee customisation lace waaye nag lace yi am daa bari façon yi am daa bari jàngal la pose perruque bouclage lissage nooy toppatoowee sa perruque ak say cliente su masterclass bi jeexee nag da ngay am sa licence en coiffure buy certifié ni mën nga coiffé si àdduna bi yépp King Fat Palace lay doon de 8h jusqu'à 22h dina am dîner de gala ak ay surprise yu bari inscription yi léegi léegi léegi léegi léegi lay doon te léegi mu jeex masterclass bi 160 000 francs rek la lay dikkee woowal gaaw Kange Style la grande célébrité ci wàllu coiffure au 77 744 88 04 77 744 wala 77 403 3 12 21. Rendez-vous le 30 janvier au King Fat Palace. c'était il y a très longtemps Youssou Ndour ak euh, Viviane euh, version première bi Youssou mu ngi ci àndoon ak euh, Néné Thierry bi mu génnee daanaka tour du monde à l'époque Euh, tukki sax dafa jafe woon waxatuma la ak tour du monde Brésil Allemagne États-Unis France partout euh, Youssou ak euh, Viviane ànd fa def li nga xamante ni moo di seven seconds li ngeen di gis nii ñu seetaan ko bégal ci suñu bopp c'était ci kanamu ay chef d'État ak kilifa yi gën a mag ci àddina ñu àndoon ak ñoom woy woy bi li nga xamee ni moo di seven seconds ci la Youssou Ndour waxee waxam ju rëy ja bul ma seen bul ma gis ma di ree nga foog ni euh, xamuma li nekk ci sama suuf ak li nekk ci ginnaaw voilà wax ju réy la wax joo xamante ni dafa laaj dafa laaj kii daal dafa laaj xóotal <laughs> donc boo ko xóotalul doo ko mën a comprendre image yi tout le temps ci góor ñi fii am nañu euh, Youssou Ndour roi waaye am na nañu itam euh, Viviane véritable reine et c'était une belle chanson euh, qu'on vous a offert en attendant ñu recevoir deuxième invité bi Sidi Bouya mbay s'appelle-t-il Euh, ñu ngi koy woowee un aveugle euh, qui écrit des romans ab silmaxala bët yi muuru euh, ci feebar bu ko daloon en tere wu ko nag doon jàmbaar bind ay livres Euh, créer parti politique ba noppi itam di mener ay combat yu noble Faty Dieng mi ngi wax léegi nii euh, mës na Cheikh ak moom waxtaan euh, tey exceptionnellement il va venir nous parler de sa vie ci suñu ay tranche de vie il nous parlera de son parcours de sa politique de combat yi nga xamante ni moo ngi koy mener mais aussi de ses livres ñetti romans yi c'est aux éditions Harmattan benn bu ci nekk dina ci waxtaan ak ñun Le Rescapé c'est son premier roman La Longue Nuit bokk na itam ci roman yi mu bind surtout de ce roman euh, mu tuddee ko volupté euh, fatale alors euh, tous ces livres tous ces romans yu mu bind il nous en parle dans quelques instants ci Midi Plus bi en attendant on va enchaîner avec une page de pub et puis on se retrouve juste après New York moom doog ànd ak Faty ci jotaayu xibaar diggu bëccëg gi Midi Plus c'est le premier rendez-vous de la mi-journée.